del déglu del borom kenn xamul mbiram lu muy def gis nga terrain bi bi mu ngi koy biñ ma koy jox quatre-vingt-deux ren la ci fanweeri at pour pièce détachée ma représenté pièce détachée ak station essence bu Texaco moo taxoon ñu jox ma terrain bi pour wax la ba léegi nekk yàlla soxlawul pièce détachée soxlawul station lii la bëggoon tey ma toog bis waa cadastre saisir ma ma ne lan la ñu ni ma sa terrain bi nga am foofu jiwawoon sa Pape Maodo si dafa am terrain ci sa wet te dafa jël ci sa terrain ma ne leen bu ngeen demee ni ko na jël yépp ndax moo ko moom mu jeex tàkk waaw pour wax la lu ne dam koy gàttal waaw bu nit ñi bëggee bunt rekk nga arrêté leen waaw dem leen ni ko moom moom yépp na jël yépp pour wàll la ni la yéen yooyu yëpp ci wàllam dañ leen koy jox rekk pour ngeen xam ni bari na ku ko gëm sax di yooxu di rey sa bopp ci moom te mu jaar xamuloo waaw waaw fi mu jaar fii ci réew mi kenn mosu fee jaar waaw waaw mooy jaay bakkanam ba nit ñëpp jox yàlla fii liñ ko war a jox moo rey bakkan niitam ba mag ñi ci seen bopp kenn ku ci nekk la nga war a day ci nit ñi nga day ko ci nit ñi waaw te nag yemalewu ko te la mu doon waaye fex na ba kër yu mag yi ci réew mi ñëpp ku ne am na contribution bu mu apporté ci sa kër kooku moom ku ku waxal yàlla rek nangu ko jàmm ji am ci nit ñeeg benn geeg ànd gi yëpp ci xalaatam la ak doxam waaw loolu nag ku sédduwul ba noppi mënuwuloo mënoo ko ndax ku yaakaar ni bu séddee keneen ñàkk doo séddee waaye kii am te mu ñàkk nag mooy fexe ba kenn ku ne mu jox la si cër Jan si lool la def waaw waaw waaw nga loolu nangul nañ ko ko bu yàgg ñun ñoo tardé waaw waaw parce que Cheikh Ibrahima Niass ba muy rey boppam ca loola xamoon na ku mu amal affaire ndax boobu waxul ni moog suñ cheikh bokk philosophie waaye am na luñ ko wan ci tariqa cheikh mu gisal ko boppam loolo ko tax a dem lonkoo jeg sëriñ cheikh xamal na ko boppam yoonam ba mu dikkee ci waawan la mu wax ak moom mag ñi ko fekke woon xam nañ ko moom cheikh Ibrahima Niass sëriñ Tene baa ngi nii bi mu demee ba wéjje borom daf ni bi wax ak kenn nañ ko wol cheikh ñu wol ko cheikh mu ñëw la mu doon dénkaane wam cheikh la ko wax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 d'information